Souleymane Ndoye mi nga xam ne grâce à lui moo tax réalisation bu mag bi ñu def ko parce que projet la boo xam ne yàggoon na taxaw vraiment dëkk bi di di si wax gu guddeeg bëccëg di si wax mais moom vraiment bi mu si jugee yëkkoo dox na ci lim ci war a jox dox si financièrement mu pare pour réaliser ka parce que c'est projet boo xam ne ni waroon na durer pratiquement trois mois mais bu ñu xoolee cité bi moom lañu jël comme témoin oculaire que ne seede nañ ne bi ñu démarré 17 jours lañ def réaliser pont bi grâce à moom moo tax parce que matériaux yi li jëm ci côté matériaux yi lépp da ko en place si côté beton aussi ku ne xam ne Sénégindia entreprise boo xam ne bu mag la da yaakaar naa ne doot ñu ko présenté kenn si Sénégal fii ñoom ñoo ñu accompagner ci wàllu béton ak qualité beton bu bu yéemee lañ fi indi boo xam ne comme ouvrage maritime la boo xam ne dafa nekk foo xam ne ndox la ñoom vraiment adjuvant yi def nañ ko ba pare aussi def nañ ay prélèvement pour pour saytu beton bi ban qualité la ñu am par rapport ak résistance caractéristique à la compression bi nga xam ne moom moo ne si plan yi fer bi aussi fer kii lañ liggéey FE 500 qualité bi gën a baax moom lañ liggéey si fer yi ba pare yamuñu si plan yi nga xam ne mooy plan BA yi ñu si loolu parce que dañ jënd ay barre achat de 20 defaat ay renfort yoo xam ne nii vraiment pour yokk a garantie bi parce que pont bi si plan yi suivant plan yi ñu ngi si gis garantie bi soixante quinze ans la mais dañ mujjee jënd ay achat de vingt pour yokka a renfort yi pour que mu mën a li nga xam ne moom moo ne si plan yi. pon la boo xam ne nii parce que man dama habitué di liggéey ay pon parce que man ouvrage d'art dama koy def lu ne woon si plateforme pétrolier bi ne si terre bi autoroute à péage kon bii qualité liggéey bi ñu def achat def double li épaisseur béton 40. kooku du caaxaan parce que volume béton bi ak épaisseur bi boo am am solo la boo xam ne pont bi tey dal na suñu xel que ne attan na lu ne camion sax bu ko neexee jaar fi parce que attan na lu ne dimensionnement bi vraiment études yi moom études yu doyo doy waata man ma ñëwaat indi apport sama apport technique ak sama xam-xam aussi laajaat ay achat de vin moom it gàntuwul dara si côté matériel bi luñ ne nii mu ne indi buñ ne doy na sax mu ne nañ yokk lépp pour dalal dina doon pont yi nga xam ne tëngee ci pont exemplaire lay doon fii vraiment si dëgëraay ak si garantie bu ngeen constaté aussi deux voies la deux voies li ñu ko def benn oto bañ a tooñ sa morom bu ñu xoolee passerelle aussi dañ ko séparé passage piéton yi dañ ko séparé aussi ak bu ne da nga am ñi jugee gauche jaar na li ñi jugee droite jaar na le pour bañ am benn encombrement si seen circulation daal